wàllu woowu. waaw xam nga sorti Bougane bi démb seetaan naa ci tuuti rek mais bi ma xëyee pour ma xam ne sorti bi réussir na dama xool deferant plateau mooy ñi may tuddee rek seen nervi yi maanaam la personne de Bougane ci lañ doon dal ci laa xam ne nag sorti bi am na dara ma demaat seetaanaat ci tuuti ci laa comprendre ci lu bari tombeek nag foofu ñu koy laaj ci mbiru saak bi mais li wax. parce que ku mel ne Bassirou Diomaye fay ak njabootam ak Ousmane Sonko sax dans l'ensemble euh, ni ñu wootee woon ci réew bi ak conseil local bi ñu woote woon maanaam du jaadu ñu bàyyi fii Sénégal dem ba bitim réew seen jabar di fa jënd saak buy jar ay millions maanaam loolu dafa dëppoowul ak seen woote maanaam ñoom dañoo woote woon ne lii ñuy dundee ci réew mi loolu la ñuy fexe ba mu mu mu ñoŋ ba ñi koy def di ci gis seen bopp ñi gisoon sax am na tabaski bu fi jub si woon euh, patron di Ousmane Sonko demoon sur le terrain jënd dàll ne ñëpp nañ dem def consommer local léegi nag su ñëwee ba si au pouvoir di di di di yor ay yére yoo xam ne bitim réew lañ ko jëndee wala ay saag wala ay yére du dëppoog la waxoon donte nag ñoom moom li ñu waxoon ak la ñuy def moom ça fait mais boobu benn point la ci woon rek boo xam ne Bougane da ko càmbar te man avant Bougane di ko sax dama njëkk a lire Seneweb foofu laa ko gisee Euh, ñu ne euh, la première dame dafa jënd saak boo xam ne biñ ko xaymaa toll na ci deux millions lu teg may leen ah loolu de bokkutoon ci li ñu woote mais nag euh, Bougane tamit génn na benn information c'est-à-dire que nee na ñii fekk nañ fi xaalis muy question boo xam ne nag ci laa moo jara taxaw Ousmane dafa génn ne fekkuñu fi xaalis banque mondiale ne xaalis am na fi Bougane génn ne xaalis am na fi muy beneen problème ci sortie bi te yoon bii mu jël nag bu ko wàccul vraiment mën na ci am lu ne c'est-à-dire que nag euh, départ politicien doo comprendre mën nañoo jékki-jékki jug rek dem ba ci biir doo comprendre seeni affaire mais nag yoon bii mu jël moom wax dëgg yàlla nit ñaa ngi koy jox bopp te nit ñi diglu nañ ko te ñi ngi koy safoo tamit parce que boo duggee ci différents réseaux yi boo liiree commentaires yi ak euh, gars yi ak ni ñu ko doon teewloo émission bi démb ci différents plateformes yëpp vraiment am na luñ gis ci moom na ci góorgóorlu nag continuer ci yoon bi mu nekk waaw démb de suivre nañ ko donte bëggoon nañ nag mu waxee fii nag moom it li mu def nii moom ségrégation la wala lan. Ah, ñun ci bokk ci lañ bokk di. moom moom day def day daw bu baax a baax. ah nous disons non seen show. bu baax a baax émission yi daa waroon na ñëw fii ñu janoo moom seen jotaay. waaw wax nga ko <laughs> ah mais mu dem fee ne faram fàcce ah. Mm-hmm. nous disons de. voilà naa ko avec beaucoup de mètres. Mm-hmm. <laughs> ndax su ma sañoon logo bi fii lay doon. très bien <laughs> malheureusement mais tamit c'était une sortie boo xamante ne baax na ndax wax dëgg yàlla Fatima kenn gisul opposition au moins moom mu ngi fii di jouer ce rôle là di jouer le rôle de contre-pouvoir di joxe le rôle de di jouer le rôle d'opposant di indi ay idées di contribuer ci débat public bi. parce que dañu nekk ci point mort boo xoolee depuis la présidentielle gisatoo benn acteur politique à part Bougane Gueye Dany Thierno Bocoum Thierno Alassane sàll buy waxati ci vie publique mel na ni ñoom li xew ci réew mi intéressé tu leen ñoom ñëpp a seetaan au moins moom mu ngi fii di ci wax di dem di ci intervenir mais aussi di ci joxe li nga xamante ne moo di contribution am man nag li may retenir mooy moom wax na ni ñii bëggul ñu échouer parce que su échouer day mel ni ñoom seen génération mooy échouer kon lépp lu muy wax. baax na kon ci di leen di contribuer ci luy gën a améliorer yorinu réew mi ak luy gën a jubbanti réew mi ak luy gën a doxal réew mi je pense que ci côté positif boobu lañu ñu war a xoolee posture Bougane Gueye dani mooy comme quelqu'un boo xam ne mook ñoom ñoo bokk génération muy xool li ñuy liggéey mais aussi di souhaiter ñu réussir de sorte que bu ëllëgee kenn du ne bi ñu joxee ñu ndaw ñi réew mi réew mi euh, nasax na wala dugg na ci ci ci ci ci guuta goo xamante ne kenn mënu ko cee dindi woo leen aussi ci ñuy wax ak askan wi li am mooy langage de vérité parce que tenant du pouvoir su bañee am jafe-jafe dafay wax ak askan wi li am bu ko defee réeroo du am lu ci mën a am rek nañu wax nit ñi li li xew ci réew mi ñuy comprendre et que aussi euh, euh, li nga xamante ne moom la ñuy wax naan état en ruine ak yooyu loolu baaxul baaxul pour investisseurs yi war a ñëw baaxul pour ñi nga xamante ne ñoom la ñu sekkal sous région bi espace UEMOA ak CEDEAO parce que su dee Sénégal état en ruine la kon Sénégal dooleem dootul bëri alors que tel n'est pas le cas si on comparait le Sénégal à d'autres pays yoo xamante ne ñu ngi fii en Afrique et dans la sous-région je pense que c'était positif dina indi contribution ci lii di débat bi. am na solo ci euh, Saliou ba tey euh, gis nañ ko euh, ginnaaw bi ñu ko waxee lan moo waral à chaque fois bu gouvernement bi tegee dara dina jëf def li nga xamante ne moom moo di réplique mu jàpp ne xëy na réplique boobu muy def li ko wundu moom moo di bu fekkee ne waxuñu dëgg fow mu ñëw indi li nga xamante ne moo di contradiction bi ñu nemee ko ci itam ci sortie yu mujj yi nga xamante ne Ousmane ko def na ko. un acteur politique noonu la war di doxee. et ce n'est pas nouveau chez Bougane parce que euh, bi fi président Macky Sall nekkee daf daan def euh, tibb tànk bu président Macky Sall dee wër Sénégal foo mu dem bu fa jógee mu ñëw fa euh, daal di wane les manquements tenir fa beneen discours loolu moom moo mooy rôle opposant politique wala homme politique boo xam ne da